nee na day ñëw c'est un jeune DG moom moo fekk il a négocié un contrat fexe ba surfacturation yi dañ fexe le nombre de villages jóge près de 1400 à et quelques loolu yëpp pour que Sénégal mën cee gagné et les voleurs n'ont pas voulu de cela mu ne leen du fi amee parce que intérêt Sénégal laa jiital il est de Mbour Jean-Michel Sène merci beaucoup mbokki maa ngi nuyu ku nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen wax juste que yéen ñëpp xam ngeen fu ñu jógee le 24 mars 2024 ñun le peuple sénégalais dafa am li nga xam ne dañ ko décider décider voter pour une rupture systémique au Sénégal voter pour jàpp ni que Sénégal dafa war a jaar fii changer ba faw décision boobu nga xam ne nag jël nañ ko ba pare dafa jot pour mu entour pour mu ànd dafa am leneen li nga xam ne moo ñu dese lu ñu dese xam ngeen lan la muy assemblée nationale bi nga xam ne ñun pour le moment amaguñu fa majorité loolu lañu war a fexe am dafa mel ni rek ngeen am kenn ki nga xam ne da ngeen ko yónni yónni ko bu bare mu ne leen instant bi dafa am leneen lu ma soxla muy passe passe boobu noonu xam nga lan la une majorité écrasante le 17 novembre 2024 ñun ñoo décidé jiital le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne moom moo fi toog ñun les jeunes du Sénégal ñun ñoo décidé na dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot si ñun ñoo ko décidé mu am ñenn ñi nga xam ne nag nee nañ loolu lu fi amee ba tax na tey vision 2050 bi nga xam ne moom la ñu présenté. le master plan euh, stratégique 2024 2035 ak le plan quinquennal 2025 2029 bu nga xam moom la ñu présenté jàpp nañ ne pour loolu noonu antu ñetti étape moom moo la ñu am redressement impulsion ak accélération ci redressement boobu nag ci redressement boobu nag dafa am lu nga xam ne dañ ko soxla muy les réformes idoines pour ñu ci dem ku wax réforme nag naan da nga soxla assemblée nationale pour loolu est ce que pour ñu def ces réformes là. est ce que le peuple sénégalais va changement systémique bi nga xam ne moom woote. donc jot na waa mbokk Mbour ñu wax ne le président Ousmane Sonko bi nekk fii toog lu ñu gën a gore. moom moo choisir le président Bassirou Diomaye Faye ñun topp ci voté que le 24 mars 2024 ñu delluwaat si ñun dañu ne léegi assemblée nationale. nationale ñu jox waa PASTEF une majorité écrasante au soir du 17 novembre 2024 je vous remercie pour votre attention. xanaa ngañ Demba mooy Mbappé moom kii mooy Lamine Yamal. merci beaucoup Jean-Michel merci beaucoup damay dugal le ministre de l'enseignement supérieur moom egsi na léegi moom également mu joxe discours am muy docteur Abdourahmane Diouf asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Mbour message rek amoon yoo du gudd février 2019 yàgg na février 2019 ci la Ousmane Sonko nekk son candidat élection présidentielle sénégalais yi votel ko mu jël troisième depuis lors ñetti élection jàll nañ fi élection locale jàll na mille vingt 2022 mais sénégalais amuñu woon occasion votel Ousmane Sonko waa Ziguinchor ñoo bu dee mooy Mbappé moom kii mooy Lamine Yamal national ñu jox waa Pastef merci beaucoup Jean-Michel merci beaucoup damay dugal le ministre de l'enseignement supérieur moom egsi na léegi moom également docteur Abdourahmane Diouf asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Mbour ñaari message rek la amoon yoo xam ne du gudd février 2019 yàgg na février 2019 ci la Ousmane Sonko nekkoon candidat élection présidentielle sénégalais yi votel ko mu jël troisième depuis lors ñetti élection jàll nañ fi élection locale jàll en 2022 mais sénégalais yi amuñu woon occasion votel Ousmane Sonko waa Ziguinchor ñoo amoon occasion votel jël local yi Sénégal jëm kanam waa côté bii war nañ leen cee wone gis ngeen daam lu am solo loo xamante ne léegi laa ko seetlu dama seetlu ne ndekete musique bi fi ñu koy defee jëm ci ay législative daa jàkkaarloog hôtel de ville bu Mbour c'est un signe et ça veut dire beaucoup de choses du ma ko commenter waaye damay dugal ki nga xamante ne moom moo di